voilà bon douzième gaynde maa ngi présenté wu man may Paco euh, comme ni ko ñëpp xamee je la mascotte des équipes nationales du Sénégal euh, yàlla dafa def ñun douzième gaynde dañ fa ñëw ça fait maintenant presque mën nañu wax ne depuis onze à douze ans man bi ma intégré carrément douzième gaynde boobu la mais douzième gaynde existence am mi ngi ci presque trente et un ans. Mhm. cest à trente un ans boo ci génnee seize ans. de règne kooku moom mooy président actuel moom loolu la fi def c'est-à-dire quinze ans avant ak euh, seize ans yi nga xam ne moom nekk na ko fii léegi nag ci biir seize ans yooyu man li ma fekk ci gestion wam moom mooy douze ans boo xam ne man fekke naa ko ci gestion am ci biir gestion boobu aussi euh, sentir nañ ne benn moment am na loo xam ne def na ko lu baax mais am na ci loo xam ne aussi jàpp nañ ne ni ko waroon defee defewuñu ko. parce que parce que tey boo xoolee tey euh, association boo xam ne trente et un ans. Mm. association boobu waroon na autonome ci lu bari waroon na am loo xam ne nit ki dina ci mën a duut baaraam ne lii kat vraiment euh, association bi moo ko fi def parce que bu ñu seetloo rek ci ci méngale ci fédération sénégalaise de football am na jamono boo xam ne dafa dox. am jamono boo xam ne dafa am benn moment bu mu xaw a out mhm. mais malgré tout ça ils ont relevé le défi ba nga xam ne tey loolu moo andi tey si côté yëpp même ba ci douzième gaynde day gën a am excellence parce que li waral loolu mooy à chaque fois dafa am liggéey boo xam ne dañ koy teg te euh, association dañ ne association mais association du loo xam ne ay euh, mbiru ay nit la maanaam ay groupe de personnes parce que boo jëlee tëgg ko ci groupe de personnes ñoom ñuy doxalee nga xam ne tey li association bi war a tënk yëpp maanaam nit yooyu ñu daal di jël ñoom ñooy euh, doxee noonu ñoom ñooy xool nga xam ne am na ci ñoo xam ne benn nit buy yore ay ñaari post jàpp ñetti poste loolu day dem ba génn association parce que association mooy ñoo xam ne euh, surtout association nationale boo xam ne dañ ne Sénégalais yëpp ñoo ko bokk li ñëpp bokk dañ koy péccoo dañ koy waxtaane maanaam du doon moomeelu kenn. déggoo am amul ay vote affaire yooyu par exemple amul bonne une organisation parce que bu fekkee da nga ne ay cumul de cumul de poste wala ay cumul de fonction si à l'intérieur bon ça pose problème est-ce que c'est bien organisé pour que ça soit bon xam nga association boo gis am na nuñ koy plan nuñ koy organiser tëgg ko c'est vrai que. association bi ci liñ ma wax man avant may ñëw de mille 2008 ba 2011 maanaam foofu ki nga xam ne mooy président actuel bi moom intérim lan la ko yoree woon léegi mille 2011 boobu ci la ñuy doog a def élection électif. 2011. Mhm. Mhm. léegi élection électif boobu mu ngi waroon doon mandat wu quatre ans. waroon jeex normalement 2013 léegi moom mandat wu 4 ans boobu yore na ko ba 2013 léegi à partir de 2013 nag foofu moo am jeu dilatoire boo xam ne c'est-à-dire moom à chaque fois dañuy noter ne maanaam assemblée générale dafa war a am mais toujours dañuy créer maanaam ay ay ay manifestation walla ay affaires yoo xam ne maanaam day dem bu dugg ci compétition buy ñëw bu ko defee nag buñ nee par exemple dañuy tëgg soirée ak Wally Seck wala nangam léegi foofu la ñuy focaliser wu ba nga xam ne nit yi maanaam duñ ko tal mais ci biir loolu loolu bi muy am yëpp euh, ñi nga xam ne dañoo génn tey ci presse bi comme sama genre yi ak ñeneen ñi génn ñu ngi woon ci biir mais dañ ko doon dénoncer ci suñu biir saa à dire naan naan les salles waaw dañ ko doon waxtaane suñu biir naan dañu war a def nii dañu war a dem assemblée général dañu war a nàngam mais en fait daawuñ ñu déglu ci côté boobu yaa ngi dégg léegi nag dañ koy jouer benn jeu boo xam ne dañuy dem ba Coupe d'Afrique ñëw ñu ne xejatu fi yaa ngi dégg léegi nag loolu moo indi ñu dem ba loolu daanaka répété wu ba ñetti yoon mais loolu moo indi tey ñooñu nga xam ne ñu ngi ko doon dénoncé ñoo dem ba benn instant ñu comprendre ne lii ñu doon dénoncé te munta am saafara kat vraiment léegi nag il est temps tamitam ñu wax nit ñi dégg ñu leneen li mooy li ci li leneen loo xam ne aussi def si am mooy que ci association bi à chaque fois dañuy xool ne euh, am na nit yi nga xam ne bu ñu leen arrangé wul en fait dañuy def benn jeté benn affaire boo xam ne c'est pour salir nit yooyu pour écarter leen ba nga xam ne maanaam euh, dootuñu mën a am existence. ci biir association bi. ñu bari gedd ci jóge fa. Grégoire.